aw bi shay'in wala ci dara min jëfandikoo ci sa yaram maa loo xam ne laa yaxilu du dagan laka ñeel la bala ngaa yëkkat say tànk jëm fenn na nga seet ba xam ne li ngay bëgg a doxi loo sañ a dox la ayut sa sawukaay na nga ko sàmm bu baax a baax bañ cee def dara lu aay sa yaram itam na nga ci moytoo def dara lu aay ni kii jonjonte ci koo xam ne wóor laa jonjonteeg moom ci yaram loolu lépp na nga koy moytu lépp loo xam ne sañoo ko rek yoon aay la ko rek dee ko moytu foo toll xaala wax na allahu yàlla subhaanahu sëral naa ko lépp leenu ci moom ne wala siin ak ñi nga xam ne hum ñoom xaafizoona way wattu lañu li furoo ji him ñeel seeni sawukaay ilaa xawal yi ba ci waxam ja fa ulaayika ñooñee hum ñoom alxaadoona ñoo di way jéggi la dagan jëm ci la araam suñu borom ba muy tagg ñu gëm yàlla dëgg-dëgg boole na ca ñuy sàmm seeni sawukaay bañ ko jëmale fu may ci seeni soxna mbaa jamono yi jaamu jigéen amee ñu jëm ci seen jaamu jigéen da caa teg nag ne ku weesu yooyu yaar muy soxnaa ko taara dem ci leneen nag yow yaa jéggi lu dagan jàll ca lu araam wa xarama araamal na allahu yàlla subhaanahu solal naa ko lépp leelul ci moom alfawaxisha ñaawtee fiya maa la nga xam ne dëxëra feeñ na min xaa ci ñoom wa maag la nga xam ne batana biide na su borom moom day aaye lépp lu bon moo xam day lu bon luy fis ci cër yi wala muy lu bon luy làqu ci xol ci biir lu ci mën doon daal ab jël day moytu lépp lu ñaaw wa an yuqraba ak bu dee fi jege ak ñu saaw jigéen ña fii dami xay bi hin na ci deret yi seen bërëb aw nifaasi hin na wala seen wasin jigéen bu tolloo ci gis deret moo xam deretu mbërëg la moo xam deretu wasin la ba keram muy jeex ba mu sangu góor ga mu seqal muy jëkkëram wala bu dee jamono yi jaam bu jigéen amee te di ab sangam war naa ormaal la tàmbalee jumbax ba ci bëti woom ba kera deret jay jeex ba mu sangu farata ba noppi wa xarama araamal na muy misaay ci jigéen ñi maa la nga xam ne taqaddama jiitu woon na ndëkkor naa sunu tudd iyaahu moom nee na am na ay jigéen yoo xam ne ñoo waxoon ne suñoo leen a takk boo ko dee wàññi foofu matal na yaar juróom ñaar te leeraloon nañ ko foofa te koy fàttali fii rek wane ne am na ay jigéen yoo xam ne araam nañ laa takk te waxal nañ ko ca foofa wa amara te mu digle bi ak li tay bi ci lekk aji tey moom aji tey nag alxalaalu mooy aji dagan nga xam ne falaa yaxilu du dagan lakka ñeel la an taakula ngay lekk illaa tayiban dara aji tey wala talbasa te doo sañ a sol illaa tayiban dara aji tey wala tarkaba te doo sañ a war illaa tayiban dara aji tey wala taskuna te doo sañ a dëkke illaa tayiban dara aji tey wa tastaamila te da nga jëfandikoo wala wa tastaamilu te da nga jëfandikoo saa iramaam mboolem la nga xam ne tantafiwu da nga jëriñoo bi ci moom tayiban bii mu ngi aji tey ñene suñ boroom daa wax ne yaa ayyuhal lazina amanu kulu min tayibaati ma razaqnaakum dafa digal mboolem digam yàlla ñu lekk lu tey te mooy lu dagan kon nag nee na looy lekk na dagan looy sol na dagan looy war na dagan looy dëkke na dagan lépp looy jëfandikoo daal moom na nekk lu dagan ndax suñ laa jëfandikoo lu araam wa min waraa'i zaalika nekk na ci gannaaw loolee nag mushtabihaatun way lënt man tarakahaa ku leen bàyyi salima mu mucc wa man axadahaa ku leen jàpp kaana mu nekk karraatihi niki aji sàmm wala niki aji for xawlal ximaa ci li wër kaaraangeel buur yooshiku dana jege mooy dana xaw añ yàqaxa mu tàbbi fii ci moom nee na daa am yu dagan te fis yomba xam am yu araam yu fis yomba xam am yu lënt yoo xam ne nag day am màndargam araam am màndargay dagan yu lënt yooyu nag moom nee na sori leen rek moo ca war boo leen soree da nga mucc sa diine mucc sa der mucc waaye boo leen jegee rek boo tuut da ngaa mel ne ku fekk fu buur aar ne bu ko kenn jege bu fa kenn sàmm nga dem sàmm ci wet ga soo wëpp da ngay jékki-jékki dugg ci la buur aaroon musiba dal la ba tey nag booy jege la lënt soo tuut lee nga dugg ci lu araam wa xarama araamal na allahu yàlla subhanahu sole naa ko lépp li yëlul ci moom ak lal maali lekk alal bil baatili ci ak neen araam na ci ab julit muy lekk jenn alal te amewu ko ci anam gu dagan faaw rek balaa lekk jenn alal na ko amee ci anam gu dagan te wa minal baatili bokk na ci ak neen alxasbu daan jël wa taxaddi ak jalgati wal xiyaanatu ak wor wal riba ak riba wa suuxtu ak ger wal ximaaru ak karat wal xararu ak xarar wal xisyu ak jaxase lu baax ak lu yemaay wal xadiixatu ak wor ci ay jëf wal xilaabatu ak wor ci ay wax bokk na ci lekk àll jaambur te muy lu araam boole ja daan nit rek ci ëpp ko doole ëpp ni doole rek daal di nangu yëwam jalgati jalgati mooy weesu fa nga war a yem ni ki boo lu yëwoon xam ne bi def sàng nga war a yem nga weesu ko mbaa nga war a suuf suuf ci lu ëpp loola te lañ la abal mbaa la nga luye lu mel noonu ak jalgati la wor mooy lu mel ne ñu dénk la nga war kóolu te ga ëpp naa def bu war kenn ci alalam mbaa ci waa këram mbaa dara daal nga sàmm kóolute lépp luy xeetu riba rek te weesoon nañ ci yu bare bari ci buntub njaay ba des na koo moytu ger ger mooy nangu ab neexal ni ki ngay àtte yu lay neexal ba tax ngay àtte jox dëgg ku amutoon dëgg mbaa xañ dëgg ku amoon dëgg xeeti ger yooyu bokk na ci gën a araam ak carte carte bokk na ci gën a araam lépp loo xam nag moom kee day teg ab teg kee teg ab teg ñu jëf la ñu jëf ku dàq jël ko rek loolu carte la ak lu ñu ko mën di defee xaroor nag ci mbirum njaay day faral di amee xaroor mooy lu wóora di ni ki jaay loo xam dafa réer xamuñu ba xam dana feeñam déet mbaa jaay lu ñu sàcc xamuñu ba xam daañu jàpp sàcc baam déet ak mboolem xeeti wóora di yi nga weesoon ci buntum njaay rek mat naa mooy ak wor ci ay jëf wor ci jëf nee nañ woon mooy kii jënd ñëw nga jox ko mu toog waa nga jox ko ndox mu sedd mu naan ak yu demee noonu nga xam ne dana rusa bañ a jëndanteeg yow gannaaw ba war ci wax nag moom dafa yaatu dana feeñ ci nga wax ko njëggu rëy rëy góob lool la loolay jar it nga wax ko fukki junni te muy jar ñaari junni ñett mbaa boog di publicité di ci wax lu amut te aajo boo yëglee am njaay moo xam ci rajo la moo xam ci journal la moo xam ci télé la da ngay wax ci njaay ma am ca waaye boo ci waxee lu amul ngir bëgg a jaral rek loolu aram na baatub alxichu gim tudd muy wor ñu koy wax tam jaxase lu baax ak lu yemaay dafa yaatu lool lépp looy jaay rek rax ca lu ca bokkut mbaa nga wanee ko anam goo xam ne ñu defe ni piir ba la te du piir ba ni ki xeeti falsi yi ni mu baree léegi daanaka lu ne rek am na ca te sax falsi bi gën a jar ndax day gën a yomb ñi jaay sax xam nañ ko daa mel ne léegi yu bari falsi ba lañ cay jaay te duñ leeral kay jënd ne ko lii kat du piir bi loolu lépp bokk na ci yi gën a araama araam ba addis ba wax ni sax man rachana falaysa minna bokk na ci yi gën a araam di jaay xam ca sikk te waxoo ko koy jënd bépp sikk boo xam ne su ko xamee du jënd mbaa su ko xamee njëggam fayan dana ko wàññi rek tey war nga xamal ko ko ba tey bu fekkee xam nga ne moom loolee muy jënd piir ba la bëgg te yow li ngay jaay du piir ba danga koy leeral ne ko li ma lay jaay kat du piir ba su bëggee jënd su bëggul bàyyi wa xarama araamal na allahu yàlla subhanahu sole naa ko lépp lu yellu ci moom ak lal maytati lekk medd wa dami ak deret wa laxmil xinsiiri ak yàpp mbaam xuux wa maag la nga xam ne uxil la yëkkatees na kàddu ci xëyrillahi ñe lul yàlla bii ca moom wa maag la nga xam ne duubi xareen def na ko di xëyrillahi ñe lul yàlla bokk na ci araam lekk medd medd ab julit sañu ko lekk deret moom ñaar la deret dañu fis mooy ji nga xam ne boo rendee rek mu daal tàmbalee sottiku mbaa ngay fees rek mu jëkkee jëkki tàmbalee naaj te dëggoo aw yàpp dëggoo ab tengo yooyu deret moom mooy ju ñu fis moom sobe la deret ji laab nag mooy ji nga xam ne ngaa xotti ak sa diit mbaa nga dagg yàpp yu muy nàcc jooju moom laab na mbaam xuux moom lépp dañ na ko aaye daa tudd yàpp fi rek waaye lépp lu bokk ci mbaam xuux rek dañ koy aaye ba tey lépp lu ñuy rendi tudd ca turu kudul yàlla di ki turu xiram mbaa leneen mbaa bokk ñu koy rendil ku bokkut ak yàlla ndax rendi ak jaamu yàlla la yàlla rek yàlla rek lañu sañ a rendil lu mel noonu araam na ci ab julit wa maag loo xam ne ahaana dimbalee na xalaa mawti yi ca deexam nga tara din ak bartandiku min jabalin ci aw doj aw waqsatun wala ak fàdd bi xasan ciw yet aw xëyriha mbaalu dul moom wala mun xanixati ak aji xerandikoo bi xablin ci buum aw xëyri wala dul moom illaa añ yudu tarra dara bu def ko loruloo illaa daalika jëm ci loolee kal may tëj ni ki medd ba tey nee na loo xam ne daa barastiku daanu mbaa ñu fàdd ko aw yet mbaa leneen lu bokk te yet ni ki aw doj mbaa mu xelandi ko ci buum mbaa leneen lu mel ne loolu su demee ba nga xam ne pàddu ya gaañu na su boobaa rend nga du ci amati njëriñ bu pàddu ya xësee gaañu rek jekki di ko rend du ci am njëriñ waaye nag bu fekkee pàddu ya gaañuwut dañ ko weesoon ca gannaaw buñ ko rendee mu baax naag gañ naagu ci ne day dee du ci dara ndegam pàddu ya moom boobu demul rek te waxal nañ pàddu yi ci gannaaw mooy yan su pàddu yi demul rek rendi nga baax waaye nag pàddu yi xasee gaañu moom boo ko rendee itam du ko taxa dagan waaye nag boo xasee loolu ba nga xam ne boo lekkul dee kon daañu la may nga lekk medd mbaa lu mel ne yi nga wax léegi te pàddu ya dem te gam na ngaa loolu ba boo lekkul dee te gisoo lu may loola kon na nga sañ a lekk ci loola wa daalika loolee ida saarat mooy ndem mujj nañu bi daalika ci loolee ila xaalin jëm ci am mbir laa xayaata moom jël ak dund bax dafoo ci gannaawam fala zakata kon di rendi fiha muy nekk ci ñoom mooy di ci am njëriñ li ñu waxoon rek moom lay leeral ne yi mu wax ñi xam ne dañoo gaañu su gaañ nga méttee ba nga xam ne pàddu yi dem na jëkki leen rendi du ci am njariñ du tax mu dagan waaye nag fekkee pàddu yi demul nag boo leen rendee moom mu baax wala ba as ayut lil mu du tarri ñel ko ñu loruloo ay yàkkule mu lekk almayta te medd waye sibaxa te muy regg waye te zawwada te mu ci yóbbulu fa indi sax naa dem doylu na an xaa walis medd ma paraxaa mu wàcc ko nee na boo loroo te gisoo lu muy medd da nga sañ a lekk ci medd ma te sañ ngaa dem ba regg daa am ñu wax naa boo lekkee rek ba téye sa bakkan xanaa boo lekkee loo xam rek xam nga ne doo deexati da ngay yem foofu waaye doo sañ rek moom mu ne nag sañ ngaa dem ba rek te mën nga caa wut sax yóbbaale ngir boo loruwaatee ba àgg fa nga àggoon mën caa jëriñu soo demee nag ba am leneen nag lu dagan nag ko lor ji jeex na nga sànni medduma wala ba sa ay bil intifaaxi jëriñu bi jël jixaa ci daru medd isa dubi xandeem si bi jëf na ko wala yu salla waaye deful julli alayhi ci derwa wala yu baaxute dee fu ko jaay loo xam ne meddam sobe la derwa boo ko téndee ba mu set di di tooy tooy yaag taq-taq ya da nga ca mën a jariñu ci yaar dong mi ndoxum ñuul mooy ndoxum kese ak lu wow waaye suñu caa jëfandikoo lu bokk te yooyu yaar te deru medd woowee kat sibij dañ ko sibij taxu koo laab mëni su caa julli mëni su koo jaay ba tey wala ba sa ayut bi salaati ci jullee xalaa juloo di sibaax ci jariñ ndeg ment ya ida dukkiyet ndem rendeef na leen mu bañ ci ak seenu jaay ndegment yi mooy rab yi fàdd moom nee na boo leen jàppee rendi leen seeni der dal nay laab man ngaa julli ci der yooyee man ngaa jaay der yooyee ndax bu dee ci yoonu Maalik moom yooyu di fàdd dañ leen di sib rek waaye àgguñu ci araam wayun tafama def na jëriñu ci suufil maytati ci ngënalal medd wa shahariha ak kawaram nga wa maag la nga xam ne yun saxu def na ko dindee mooy def na ko noccee min xaa ci medd ma fin xayaati ci waxtu dund ga nee na bu nee lii medd na te meddam sobe la du tee la nga xam ne ba muy dund mën nga ko caa dindee te du metti ci moom mu di ko yëg su xasee medd itam mën nga ko caa dindee jariñoo wa axab li gën a sopp elinaa jëm ci malik an yuux sala mooy bu dee fi ko raxas maanaam la nga dindee ci medd ma nag bu fekkee daa taq sobe moom faaw nga war koo raxas waaye bu fekkee taqul sobe na la wax ne daañu sopp nga raxas ko wala yun tafaxu deful jëriñu biri shiha ci ay dungam wala bi xarniha du caagéenu ci béjjënam wa azlaafiha ak ay njaaxoom wa an yaabiha ak ay bëñam daa wax ne buñ ne lii medd na te meddam sobe la dongu yu mag ya nga xam ne moo taq ci der yaram wa nga xam ne ba muy dund boo ko doon suqi muy metti yooye dongu léegi sobe la te dongu yu sew yi nga xam ne moom boo doon jàpp ganaar wala yu mel noonu mu jekki-jekki topp la du ko yëg yooyu moom laab na waaye nag dongu wa nga xam ne moom ba muy dund boo ko doon suqi muy metti bu loolu xasee medd rek léegi dongu woo sobe la lu mel ne béjjën baag weyaag bëñ ya nga xam ne ba muy dund boo ko doon dindi muy metti ba tey bu loolu xasee medd jeex na yooyu yëpp sobe lay doon wa kuriha sibeef na al intifaaxu jariñu bi an yaabil fiili ci bañu ñay daa am ñu wax ne aw ñay moom bu meddee itam tutee bañ ya ñu wax iwaar dañ koy sib rek yem ci waaye du àgg ci araam ndax bari gum bari njariñ waaye wax ja gën a wóor mooy ñay ak lépp lu am deret ji sottiku bu xasee medd rek sobe la bañ yàgg yooyee nga xam ne ba muy dund boo ko doon dindee ci moom muy metti it sobe lay doon ñay wa nag bu ñu ko rendee doonte sax rendi ga du tër rendi cor rek la ba mu dee nee nañu kon bëñ ya mënees na koo jëfandikoo buñ ca dee wax dara ak sib rek lay doon te du nekk sib bu am doole sib bu xaw a seexlu rek lay doon wa kullu shay'in mépp mbir minal xinsiir ci xinsiir xaraamun aji araam la teewul nag waxaat urxisa yoola ma leef na fil intifaax jariñu bi shahrihi ca kawaram nga mbaam xuux moom lislaam da koo bañ lool aw yàppam sa ñeetu caa laal dara teewul nag kawar ga moom nee nañu manees na koo jariñoo ni ki nga def ko ci ngeganaay di ko geganooy ak demee noonu daal waaye lépp lu bokkut ak kawar ga rek sañu su ko laal li ñu maye sax ci lu meddam araam boo defaree deraw ba mu set nga mën caa jëfandikoo ndoxum kese mu ñuy wax ndox mu ñuul ak weneen ñam woo xam daa wow koŋ fekku ci deru mbaam xoox deru mbaam xooxu meddu moom moogu meddu te jëm doo ca sañ a jariñoo dara wa xarama araamal na allahu yàlla subhanahu soyal naa ko lépp léelu ci moom surbal xamar yi naan sàngara xaliliha aji néewam wa kasiriha ak aji bare su borom kat dafa araamal lépp luy xeetu sàngara bi ñee nag lii sàngara la naan ca lu bari ak naan ca lu néew ñooyemoo lu ci nekk rek lu araam la wa sharaabul arabi naanuk arab yi yow ma isin ci bis boobee fadixu tamri xonjal tàndarma la woon wa bayyana te biraloon na arasul yonante bi alayhi salaam ne ànd na kullamaa naka lépp loo xam ne askara màndal na katiruhu aji bareem minal ashribati ci naan ya fa qaliluhu topp aji néewam xaraamun aji araam la nee na ba yàllay araamal sàngara booba daa fekk arab yi ñu daan jël tàndarma xooj ko njambaan ko mu foor a foor ba nga xam day màndal yonent bi daal leeral ne lépp loo xam ne xeetu naan la buy màndal rek dal ne doon sàngara ni mu waxe ne lépp luy màndal ci xeeti naan yi dañ cey dégg ne kon loo xam ne du lu ñuy naan waaye nag mën naa màndal am na wuute ci diggante boroom xam-xam yi am nañu wax ne lépp lu mën a màndal doon ci sax du lu ñuy naan ki xeetu yàmbaak xeeti dorog yu bari yi ñoog sàngara ñoo yemoo te it ñoom ñi wax loolu dañ ciy àtte àtte bu diis a diis ci jamono yi ñu toll ndax bari gu yooyu bari ak yàqu ci adduna bi am na ñu wax ne loolee kat ndegam moom du lu ñuy naan dañuy seet su fekkee ne kooka jëfandikoo na ca lu mën a soppi am xelam def na lu araam te attekat bu war na koo yar yar ga nag mooy seet rek la ca jaadu mu teg ko ko waaye bu fekkee kooku da caa jëfandikoo rek loo xam ne da koy fajoo te it du wàññi dara ci xelam du wàññi dara ci yaramam loola kon dagan na bu dee ci wàllu laab gi nag moom dañuy jàpp ne loolu nga xam ne nekkul ak naan ni ki yàmbaak dorog ak yooyu jëmm ja laab na nga xam ne bu ko defoon ci poosam julliwaale ko itam du tax dara yàqu ci julli ga jëmmi sàngara nag moom sobe la fu mu ko taq rek faaw ñu war koo raxas te ku ko naanit faaw ñu war koo gitan moo xam màndi na moo xam màndiwut nañ ko waxe woon ci gannaaw juróom ñett fukki yar wa kulluma lépp loo xam ne xaamara muur na alxaq la xel ma fa askara xoo te mu màndal ko min kuli sharaabin ci gépp naan fa xoo moom xamru sàngara la gépp naan goo xam ne rek mën naa muurum xel màndal koo ko ba mu sigré daal nay doon sàngara waqaala waxoon na rasul yonente bi alayhi salaam inna lësi naka ka nga xam ne xarama araamal na surbaha naanam nga xarama araamal na bay xaa jaayam nga yonente bi nee na woon yàlla mi nga xam ne moo araamal ku naan sàngara ba tey moo araamal ku ko jaay wana xaate mu tere woon xanil xal yi tey ni walis yaar yu ñu jaxase minal ashribati ci xeet naan yi wa zalika te loolee ay yuxlataa moo di bu defi leen jaxase xindal intibaasi fa xonj ga wa xindal shurbi ak fa naan nga daa wax ne yonent bi aay woon na jaxase yaari naan ndax mën naa am àgg ci mën a màndal te doo yëg ne àgg na ci dégg rek màndal jaxase googu ne yaar la mën naa am ba ngay xonj nga leen jaxase mel ni nga boole tàndarma ak reseñ xonjandoo njambaanandoo loolu da nga leen a jaxase ca ba nga leen di xonj maanaam itam nga xonj fekkee maanaam xooj fekkee xooj fekkee ba ngay naan na nga boole yaari naan yi lépp aaye woon na ko ndax bañ fekk ma àgg ci dégarib màndal te fekk na yëgoo ko wana xaate mu tere woon xani intibaasi walis xonj ci dubbaay ci ab tax wal mu safati ak ndab lu ñu diw ko doron yonente bi daana aaye ab tax ab tax moom pare ñu ko xam waaye day mel ne ngelaw dugg ko da koy jafe moo tax daana bañ kenn di njambaan di xonj ci ab tax ndax mën naa gaaw àgg ci dégareb màndal te kooku du ko yëg ndab lu ñu diw godron itam godron dafa am doole daanaka ngelaw lu ko mën a jaar fenn kon day daal di gaaw a màndal daana aaye ku ci xonj nga xam ne kon xeeti njambaan yi muy daqaar muy xeeti yi nga xam yëpp rek ni ki buyee yëpp rek loo ci njambaan ba mu neex te du màndal rek dagan na xéewal la waaye nag lu ci dem bay màndal daal di soppi ko sàngara wanaha tere woon na moom yonente bi alayhi salaam xan akkali kulli tiinaabin walis lekk lépp luy boromub sell mina sibaaxi ci neg ment yi yonente bi daana aaye lekk lu amul sell mën a fàdd moroom ma ni ki mëfërëg te neeg tillëg yi demee noonu bu dee ci yoonu maal nag moom day jàppe tere googu tere sib agul ci araamal ko waxan akli luhoo min humuri ak walis lekk yàppi mbaam ya ak ahliyat yi ko jub kër wa daxalit tàbbi na ma daxalaxaa seen tàbbikaay luhoomul xayli yàppi fas ya wal bi xaali ak baxale ya li xawlillahi ngir wax yàlla tabaraka wa taala li tarkabuha ngir ngeen di leen war ngir ngeen di leen war wa sinatan a ngir mu nekk waajtaay nee na yonente bi aay woon na lekk mbaami kër yi mbaamu kër araam na lekk ko mbaami àll ya nag moom dana ko wax léegi yi nga xam ne moom ñëwaguñ ba miin ci kër gi yooyu moom sañes na leen lekk boo leen rëbboo mën na leen lekk waaye mbaami kër yi moom araam na lekk leen te nee na fas noonu la bax la it noonu la ndax nee na suñu borom daa wax ne li tarkabuha wasinatan daa sàkk yooyu ngir ngeen war leen di leen waaje wala zakar déedéen di muy jariñ fii seen ci dara min haa ci ñoom bu ñu nee mbaamum kër wala bax la wala fas araam na ku ko lekk kon rendi ko du ko taxa dagan rendi ko du ci am njariñ illaa fil humur yi ndare ca mbaam ya al wax sujets yi ko jum jaay àll mbaam àll yi moom bool rëbboo mën leen a lekk waaye nag bool andee ci kër gi bañ miin mel ne mbaami kër gi itam daal di araam ne mbaami kër gi wala baasa ayut bi ak li si baaxi tayri ci lekk ndegmenti jaww ji wa kulli si mi xalabin ak lépp li borom gëddukaay gëddukaay gëddukaay moo di we wu ñaw min xaa ci ñoom bu dee ci yoonu Maalik moom lépp luy naaw rek ci xeeti njanaaw yi mënees na koo lekk doonte sax day lekk sobe mel ni tan wala mu am wewu ñaw di fàdd moroom ma it tutee rek moom bu dee ci yoonu Maalik lépp luy naaw rek daga nañu lekk ko kon ci takk-takk rek bu dee ci yoonu Maalik man nga ne mbooleem njanaaw yi naaw rek lépp lépp dagan na ci yoonu Malik amu ci dara dara lu ñuy araamal am na ci lu ñu sib nag ni ki nee nañu liy wax njugub ak may sa njuburu koy tudde ci arab alwartuwaatu ak alhudhudu ñoom dañu leen a sib te ñoom dañuy naaw ndax dañoo wax ne ñoom dañoo baril ak lekk sobe lool lool waaye nag gis nga ne tan bari na lekk sobe ji médd di taxul ñu boole ko ci yéen ñu sib waaye ñoom daal noonu la ñu waxee ci takk-takk ba tey lépp loo xam ne lu dëkk la ci géej rek bu dee ci yoonu Maalik dagan na doonte sax la ñu wax xajub géej la wala mbaam xuuxu géej wala lay nuru doomi aadama ci géej teewut yooyu yëpp dagan nañu doonte sax dañoo médd ndax méddum géej moom dagan na moo tax ñu mën a jëfandikoo jën ak yenn mel soo ñëwee ci rab yi nga xam ne ñoo dëkk ci suuf si moom dañuy seet ci teqale lépp rabu njaay àll woo xam ne du fàdd moroom rek bu dee ci yoonu Maalik dagan na lépp rab woo xam day fàdd moroom ma bu dee ci yoonu Maalik lu ñu sib lay doon su ko defee nag am na ay benn benn yoo xam ne am nañ cay wax ndax boo ñëwee ci xaj bi nga xam ne moo miin nekk ci kër gi am nañu ne dañ koo sib am nañu ne daa araam am nañu ne déedéet dagan na boo ñëwee ci golo am na ñaari wax am nañu ne dañ koo siba lekk am nañu ne daa araama lekk boo ñëwee ci janax dañ koy teqale bu dee janax yi nga xam ne dañoo nekk fa am sobe di lekk sobe dañ koy sib bu dee janax joo xam ne fa mu nekk moom du lekk sobe kenn sibu ko dagan na am na lu ñuy tudde bintu xurus muy rab woo xam ne nee nañu lekk ko day tax a gumba moom nee nañu lekk ko dafa araam wa min al faraidi bokk na ci farata ya bërul walidayni topp ñaari waajur wa in kaana ak doonte nekkoon nañu faasiqay ni di ñaari kàccoor wa in kaana ak doonte nekkoon nañu mushrikay ni di ñaari yéefar way di aji bokkaale yàlla fal yaqul nay wax lahuma ñeel leen ñoom ñaar xawlan wax lay nan ji aji nooy wal yu xaashirhuma te na àndanteeg ñoom ñaar bil maaroof ci njëkk wala yutihuma te bu mu leen topp fii maasiyatin ci mooy kama qaala ni ko waxe allahu yàlla subhanahu wa taala nee na bokk na ci farata yi kenn ku ne mu fonk ñaari waajuram déggal leen te yàlla tax doon ci sax dañu di ay moykati yàlla wala doon ci sax dañoo weddi yàlla du tee rek moom mi doom ji la ko war digganteem ak ñoom na ca taxaw nay wax ak ñoom wax ju nooy bañ a gëddaate bañ a yabaate ànd ak ñoom ci lépp lu baax te nag ñu bañ ko yóbbaale ci mooy ndax suñu borom dane wa in jahadaaka ala an tushrika bi maa laysa laka bi xilmun fala tutihuma bu dee sa ñaari waajur bëggee yóbbu ci mooy mel ne bokkaale yàlla ak dara su boobaa bu leen topp kon nag sa waajur loo ko fonk-fonk rek bul ko topp ci lu nuru xeetu mooy yàlla